bépp réer safara la la jëmee nga ne yàlla nanu yàlla musal ci safara ah kon de yàlla ñu yàlla musal ci bidaa ñu ne la waaw waaw lan mooy bidaa ñu ne la mooy tarixa yi nga jàpp nii bidaa la ah nu may def pour mucc ci war a mooy ci sunna pour dem àjjana ñu ne la kaay bokk suñ kuréel bi kaay bokk ci suñ yoon wi kaay nekk salafiya kaay nekk wahabiya pour yow nga mën a nekk euh, ku tegu ci yoonu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw turu salafiya ak wahabiya amuloon jamono yenent bi sallallahu alayhi wa amutoon amuloon benn kuréel bu tudd salafiya saxaaba yi xamuñ woon salafiya xamuñ ko woon yenent bi boo nekkoon woon lan mooy salafiya la lay wax ci waxin ci waxin léegi salafiya tijaaniya qaadiriya naxsabandiya lu ci nekk yoon la dafa am ku ne loolu woote ca ba aw nit ñëw wuy si ko ca léegi yow nga ñëw ne waaw yéen ñii yéen a ngi wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah baaxagu leen kañ ngeen di baax mooy ke ngeen fekk si ma ci li ma nekk yéen a ngi julli waxtu yu juróom di woor weeru koor di dem màkka di génnee adaka baaxagu leen bu ngeen dee safara ngeen jëm waaw man lu may yóbbu aljana ñu ne mooy nga bàyyi li nga nekk ñëw ci man mel ni ma mel di soloo ni may soloo bokk ci sama mbooloo su ma wootee nga wuy si ma su ma laajee nga jox ma waa kay léegi yow nekk nga jullit ñëpp ne uddi la wooyee nitu sunna waaw léegi nag ñeneen ñu dul yow nag nañ nekk nit du bidaa ba keroog ñu lay fekk si wéer ko fan wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi naar xam nga safara ni mu tàngee ñëpp ko ragal soo ñëwee sëgg ci nopp nit gëmloo ko lii nga nekk boo ci dee safara nga jëm boo ci dee safara nga jëm te mu ragal safara bu yàggee bu amul fu mu taxaw amul dëgër laay day bàyyi la mu nekk ñëw wuy si la te bu la wuyusee bu fekkoon da koy bàyyi ci boppam sax ñu mën a wax xam nga nit mën nga ñëw ne yéen li nga nekk nii du dëgg bidaa la ñu ne la waa d'accord li ñu nekk nii de du dëgg bidaa la léegi bàyyi nañ ko léegi nga nañu waa da ngeen di jàng seen diine kaay ma jàngal leen ko nga jàngal léegi nag nga leen dem leen ngeen dundi ko bu ñu gisee giseeti bu ma gisee teg yow waaye déedéet ngaa yi buñ la bàyyiloo li nga jàpp ñëw ne dañu la woo ci sunna duñ la bàyyee noonu nag dafa yomb da ngay adhéré ci groupe WhatsApp bi doctrine bi ñu la koy gën a sol léeg ñu soxla nag ñu war la woo pour nga ñëw ci seen événement yi da ngay ñëw léeg ñu soxla ay contribution ci seen projet yu ñu tabax da ngay joxe ay contribution yow mii ñu wax ne kay dund sunna kay bàyyil bii daa lépp loo doon defal yow fa nga aju woon ñooña soo ñëwee dugg fii da nga leen koy defal dañuy toog ci kaw nga toog ci suuf dañuy laaj ngay joxe dañuy woote ngay wuy ji est-ce que ñu ngi jëfandikoo xel yi bàyyil bidaa lan mooy bidaa tariixa yi bidaa la waa d'accord man de banaa ñu ne la waaw léegi nag jàng naa diine bàyyi leen ma ma toog sama kër ak sama njaboot di dundee sama ñaq di jaamu yàlla ñu ne la ah, day yomb nag yow gannaaw bokk nga ci ahlu sunna yi léegi ah cheikh diw nag dafay am projet yu ma am da ngay jàpp ci projet yi cheikh diw dafay tabax jàkka danga ciy jàpp cheikh diw dafay tabax daaraam da nga ciy jàpp jàpp waaw pourtant yooyu yu baax la mais bi nga ko doon defal ka nga aju woon ca moom ca bañ la waxee ne yaa ngi nekk ci lañ tuddee ñoom bi daa mais dañ la doon sikkal pour pourquoi ngay dem ci toolu bàyyi diw di ko bayal pour pourtant bàyyi diw lu tax muy woote ngay déplacé wu di ko wuyu léeg-léeg sax ñu jëlal la xadiis yi wane ne kenn warul jóg ngir di dem ci benn bërëb ngir jaamu yàlla lu dul ñetti jàkka yii jàkka yenent bi masjidul haram jàkka ja ca Jérusalem masjidul aqsa lu dul loolu tukki boo jóg ne yaa ngi ziyaara ji bàmmeel wala nangam dafay xaram léeg-léeg ñu sol sax yu mel noonu ci sa xel mi waaye bu laajee nga war a wuy si ci seen wooteeg loo joxe dangay ngay wuy si woote ki nangu xadis bi ñu yemale ko ci waa doctrine bi lañ koy sol mu jël ko te xadis bi dafa généraliser kulla bid'atin dalala dafa généralise exception bi génn ci xadiis bi da ngay jógee ko ci sunan bu nasaa yi dem ci saxiix bu muslim sa ngay jëm maa ngi ñëw léegi saxiix bu muslim ngay dem moo lay indil xadiis buy wan ne ndeke de kon danañ sos mbir muy lu baax loo xam ne nii kii di la wax ne lu baax baaxut fekk na am na xadiis bu ne la luñ sos muy lu baax lu baax la waaye boobu mënula la ko jàngal mu leer ci sa bopp ndax bu leeree ci sa bopp dafay am loo mën a ñàkk nangoo wuy ji ci lim lay woo